mbokk yi compagnie Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di a jeex fan weeri fan ak benn ci jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jeetu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 million deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépo la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. ma ñàkk maanaam junj li nga xam ne moo nekk ci xol bi ma xalaat loo ko xel mi wax loo ko làmmiñ wi ngir dettal ko ñiy déglu te ñàkk mooy di jéggulu képp koo xamante ne bii kilifa diine nga di jéggulu képp koo xamante ne bii kilifa àdduna nga kilifay diine yi Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo nekk ci bopp bi kilifay àdduna bi rais Macky Sall moo nekk ci bopp bi may jéggulu xalifa bi ak ñi bokk ci diine lislaam ñépp di jéggulu président bi ak ñi bokk ci dawla bi yépp di jéggulu itam suñu mbokki chrétiens yi parce que soppi yi fépp lañ nekk damaa gis fan yi bi nga xamante ni bi mbir yi xew na ci xale yi ma gis li nit ñi daj soppi yi ma kersogu ci lool moo tax mënumaa ñàkk ba ñuy jàllale lii di leen jéggulu di jéggulu ñépp di xam leen ni rek ala kulli xaalin yàlla bi mu indee fii rek lanu ni kat wala nabul wannakum bi shay'in min al xawfi wal joom bu xiifi jotee wala bu ragal jotee maanaam lu nekk di xew ci ñun ni guddeeg bëccëg di xewe rek ni weer wi ak jant bi di génne rek te bokkuñu ak wutale gi nu yàlla wutale rek e, ma bëggoon rek waa réew mi dalal seen xel moo xam kilifa yi moo xam ñi ñu yëlif moo xam kilifay diine yi moo xam kilifay adduna bi nañu dalal seen xel ci man ci sama jëmm ji ndax ku tedd ki daf ma waajal ba ma ne cocc fi toll nii lépp loo xam ne luy yëngalum réew la wala luy naqari xolu doomu aadama du jóge ci man mm-hmm. waaw du jóge ci man niyatan du jóge ci man xawlan du jóge ci man fi'lan waaw du ma ko yéene duma ko wax du ma ko def ama jëmmi nag samay ngaat ngaat ak ni may amuser wa ak ni may dundee ko tedd ki loolu boo xoolee forme bi mën na laa nax loolu it bëgg naa nit ñi xam ko li ñuy tuddee sécurité itam bu dee man sama jëmmi bopp ji wax dëgg yàlla xafisani dafa may doy nii daf may doy najjaani daf may doy ndax ida qatattu tazza wa sabaxat malaikul ilaahi mbindum ko tedd ki benn xaraf képp buy bind maanaam aras di yëngutu malayka yi di sabal loolu xajul ci dara moo tax kay man xanaa bu ma bëggee lu ma aar foofu laa koy wut mbir yi sécurité ak yooyu xañ na xew la ci jamono la rek waaw loolu dinaa ci ñëw duma ci sori ndax euh, balaa yàgg war na maa wax wax ju leer ju yaatu waaw wax historique gu diwaanu Silkul Jawahir fi axbaari sarair yëpp waaye lii daa mënta ñàkk balu àq ñëpp nag ak di sant ñëpp itam ci cofeel gi ñu may woon ak yëg-yëg yëpp waaw Cheikh Bassirou Abdou Khadir moom dama koy waaw berelu cant ndax itam wax dëgg yàlla dëgg la ñëpp ngi wane ak yëg ak cofeel waaye moom daf cee xaabaabal moo tax ñu ngi koy sant te di ko bàyyee ak ba ci njiitul réew mi wan na ma wan wan am na lu ma ci wan loo xamante ni bii ci sama digganteek moom te état état la bu liggéeyam jotee <laughs> moo xam waaw moo xam moo xam nañu koy doxalee ak euh, seeni directive bu ñu ko joxee ak ñu ñu koy digal ñu koy defee nañu koy defee naka jekk loolu moom ci état yëpp la waaye yooyu lépp daa jotewut ak li may wax dara man daal fi ñu toll nii sama njaboot euh, ñi nga xamante ni bii ku ci à partir de maintenant ku ci xamante ni bi da ngaa bëgg a taxawal cellule de sécurité wala dara ah nga dem ci loi bi dem ca intérieur waaw ah, jëm ci intérieur bi ñu la autorisé pour nga taxawal ko ndax gis nañu société privée yi di am ay sécurité ak ay yu deme noonu waaye man yooyu yëpp sax man dama cee nekkul waaw man yooyu yëpp dama cee nekkul wax dëgg yàlla bañ naa ko ba damaa tëj sama bopp kaso ay ate ate ate at di bind ci ku tedd ki looloo ma ñor waaw loolu lay dund itam bëgg gi ma bëgg a dugg kaso nag kooku ci xol bi la sama diggante ku tedd ki la loolu moom ça n'a rien à voir du damay jóg di tooñ pour duggi fa wala yu demee noonu déedéet loolu moom noonu lañ ma mooñaalee ndax ku tedd ki moom ma moom féete ma fépp nekk sama kaw féete ma kaw féete ma suuf féete ma biir ak biti ak ndeyjoor ak càmmoñ waaw ba ñàkk ba ni may ñaane mooy noo nii di la bàyyi sunu bopp ak sunu lépp ak sunu ñëpp waaw kii kay kon maanaam wutuma fenn lenn damay maslaaka kii rek diplomatie ak yore samay façon rek geetaru gi nag moom faw ma koy def ndax ak soldat ci boppam moom maanaam dafa dafa nekk ci sama xol toujours damay faral di wax ni discipline militaire moom moom lañ fi war a instauré ak yu demee noonu maanaam ma bëgg rek Sénégal yi xam ni moom gis ngeen nag ku tedd ki ni ma suturaale ak it ni mu def ci ndaw ñi nga xam ne dañoo féete ak man nga xam ni seen xel xalaatul nekk di yuy bokk ci ñuy sànni xeer ak ki ay deret ñoom jërëjëf Serigne Touba waaw moo nekk ci ñoom loolu itam wax dëgg yàlla ak cant la moo tax si ku tedd ki xamuñu noonu koy sante bu ko defee loolu na ko waa réew mi xam bu soobee yàlla balaa yàgg balaa at may jeex war na maa def sortie médiatique boo xamante ni bii dinaa gën a yaatal leeral sama njabo njaboot génn nañu fonk ndax lu weex lu weex àjjana lu weex lañu fay sol kenn du fa sol couleur yi ay noo de fii la xewee waaye àjjana moom lu weex rek lañu fay sol kon nañu xewal nañu dellu cosaan ci jamono jamonoy sëñ mu Moustapha dem ci dellu ci perkal waaw ba noppi nag waaye du tee nag faw ngeen ci boole costume yi ndax kostume <laughs> mooy temporel bi faw ngeen ciy boole kii nañu nañu yiw rek waaw ñu yiw ko sell rek man nag faw may geetaru waaw ndax dafa am lu may incarne loolu moo tax waaw waaye geetaruloo ma kenn solootuma kenn tenue bu ñu naan kii sécurité la wala yu noonu man kenn mënu maa sécuriser ku dul ki ma moom waaw def ci man li ma ci fexe ba maanaam dara ñoruma lu dul moom ak yëfam ak i xasaayitam